saturahu llahu yawmal qiyaama ku baax ji itam wax na ci lu bari muy Cheikhul Xadim nee na bul gëstu mukk euh, njuumte nit di topp nit ñi seeni njuumte ak seeni rëcc rëcc ak seeni pakk pakk bu ko lañ bat bu ko seet bu seet tam seeni awraag la nëbbu mu ne wala mu ne wala takun multami multamisan asaraat wala tubaaxis abadan an awaraat mu waxaat ne tam nit ñi la nëbbu di ko suturaal bu ko seet bu ko gëstu bu ko lañ bat waaye nag la rafetle moom dee ko seet dee ko waxtaane dee ko siiwal mu ne boo dee seet nit ñi lañuy nëbbu ak la ñu ñaawale nga di ko siiwal di ko tasaare son borom day xawi sa malaanu sutura mi mu mi mun a muuroon laa taltamis min uyubi naasi ma sataru wa yaxtika allah sitran an masawika ab jullit nag soo ko dee sàng sutura mooy lan mooy lépp loo xam ne du noona ci moom noppi ca nëbbu ko te lépp loo ko xamal ci lu baax nag dee ko waxtaane te kat nit ki boo dee waxtaane lu baaxam ah, mu law ba mu àgg ci moom xamal ne am nga soppe waaye boo dee wax nag ay safaan ci moom ak ay njuumteem muy law ba jot ba mu àgg ci moom xamal ne am ngam noonu te sàkku ay soppe wut ay soppe te bañ a noonu moom la boroom boroomu xel di def fa axbaru bi ann nisfal aqli tawaddudun lin naasi an dil boroomu xel day fexee sopp sopp lu jëm ci nit ñi kon loo xamal ci nit nit ci lu baax dee ko waxtaane la nga la nga xam ci moom muy ab safaan la nga jàpp ci sa njaam mooy fa leexul xayran aw li yasmut sàng sutura nag mu teweesu nga xam nit ki ab safaan di ko ko nëbbal di ko ko nëbbule te loo ko xamal ci lu baax nag di ko siiwal di ko feeñal ndax ñëpp xam ci moom lu baax loolu waral ku baax ki bu Cheikh Xadim danaan sàng sutura taalibe yi daana bett ay taalibe sax ñuy def naka satul noonu ci biir këram waaye day deltu ginnaaw ndànk yoon ndànk bañ ñu ko bañ ñu gis ko te moom la tooñ ndax xam na ne yàlla nit jabooti nit ñi sàkk leen bind leen moo leen jëkk sàng sutura kon nag jaam day sàngale yàlla xam ne dama waxe woon rek ne moom yàlla sutura jaamam yi sos dara day sof rek ci ay kilifaam nee na kon day sof rek ca la kilifa yi daan def joxe na digal loo xam ne nee na dafa bëgg su altine ak jàmm na kilifa yi daan santaane rek loolu yeesalaat muy wàllu jàngal jàngu alquraanu karim nee na su altine ak jàmm bu ñu xëyee juróom-ñetti waxtu rek bu jotee na ci ñëpp xëy fu jàkk am nañ fa daje fu jumaa am nañ fa daje fu pénc am am mbaar mu mag nañ fa daje di jàng alquran karim te mu sell bu ñu koy def ba bëccëg rek ñaan ñaan yàlla def jàmm ci réew mi ñaan yàlla defal jàmm kilifa yi ñaan yàlla defal jàmm seen njaboot muy njaboot yi ñaan yàlla tam nawet bi ñu dëgmal euh, yàlla def ko mu nawet bu teel def ko mu nawet bu baawaan te barkeel te te ñëpp muurloo ko te fekke ko nee na nañu ko def su altine su ko defee nag pénc yañ koy defee ak jàkka ya ak jumaay ñu dëkk ca wet ya te mën a defar ay xéewal nañu defar ay xéewal yóbbu ko ca mbooloo ñu xéewloo ko ndax mbooloom jullit ñu daje di jàng alxuraan karim dékk yàlla seeni loxo di ñaan jàmm te jàmm bu ñëw ñëpp koy bokk kon ku ca jëf xéewal yaa ñoom yéen bokk lépp kon nee na ñu koy digle di ci soññee na ci ñëpp farlu su altine bu altine bu ñu xëyee rek nañ ci xëy jàkka yi ak jumaa yi ak penc yi kër kilifa gu am mbaar nañu daje ca mbaar ma ci biir kër ga di alxuraan ba bëccëg rek ñu mën a yëg ñu mën a nag ñaan ñaan yàlla def jàmm ci réew mi ndax réew mi la ma bu jàmm amee ci réew mi rek nu am jàmm yàlla def jàmm ci réew mi defal ko kilifa yi defal ko tam njaboot yi nawet bi tam dëgmal na mu teel te naat te baawaan te barkeel te muurloo ko yàlla na ko yàlla def su ko defee nag ña xam ne ñu dëkk ci wejje te mën a defar ay xéewal neen na nañu defar ay xéewal jox ko mbooloo ma ñu xéewloo ko buñ ko xéewaloo ñëpp bokk yàlla seeni loxo ñaan ko ndax yàlla buur bu baax la xam ne moo santaane ñaan te ko ñaan mu may la te xéewal yi moom doyowul dara koy joxe rek te xam ne moo moo moo moo moo taatan dëkk ndab kooku rek mooy am waaye kii dul ñaan dara du am dara kon nag bokk ñaan yàlla yàlla defal nu jàmm ci réew mi defal nu jàmm ci njaboot yi defal ko kilifa yi defal ko dong yi defal ko kilifa bu mag yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu